tax euh, euh, la Serigne Cheikh waxoon daal mooy dëgg nee na daal yàlla bu doon yónneeti yónneent bu ko joxul xaalis kenn du ko gëm ah bu doon yónneeti yónneent waxul jamono yu jëkk de jamono yi bu doon yónneeti yónneent te jox ko xaalis kenn du ko gëm xaalis rek ah yéen a ngi nii di politicien bu leen nangoo jox xaalis ngeen ànd ak moom ku leen lànk jox xaalis ngeen bañ ah su leen ñaari politicien wooyee kii jox jox leen lu bëri kii jox leen lu néew ngeen bàyyi fa ko néew lu ko dem ci ko bëri ba <laughs> ci ko bëri ba adduna noonu la adduna parce que da nga war a defee sa dund kon ki la ko mën a defaral moom ngay àndal si jamono day dox jamono day dox dangay xam ne jamono day dox bu la jamono rawee nag da ngay da ngay daw da ngay da ngay doy waar bu la jamono rawee da ngay doy waar waaye soo làngeeg jamono du la raw jamono nag buñ ko waxee mooy ñun ñii génération bi dafa am lu ñu laaj génération ba amoon na lu ñu laaj génération ba amoon na lu ñu laaj génération bii am na lu ñu laaj génération bi ci kanam am na lu ñuy laaj du bokk lii du bokk lii moo tax xamal jamono rek soo xamee jamono rek jeex nga waaye soo xamulee jamono da ngay wax dara rek ñun waaye waaw baax na baax na baax na baax na waaye parce que waxoo nit boo koo waxi nit mais boo xamee jamono nag soo waxee rek ñu ne baax na gongo moo tax loolu moo moo koy indi c'est bon ban bëggoon naa ci bëggoon naa ci dugal ci wàllu euh, kii bi nga nga nga wax noonu ci wàllu sëriñ si dañu gis ci alquran yàlla wax ni ittaqullaha wabtagu ilayhi wasila wasila boobu sa laa bëggoon a xam dafa am ñoo xam ne ñoo jàpp ne wasila boobu duwul nit te tey da ngay dégg ñun ci suñu jamono dañu naan diw mooy sa diw mooy sama wasila ñoom ñu jàpp ne wasila boobu alquran la wala xam-xam la sa sa sa position foofu sa eh, mais position yàlla position yàlla sa gis-gis ko foofu ci gis-gis yàlla <laughs> wabtaxu taxu lu wasila nit la soo demee garage fekk oto bu amul moteur nga dugg ci oto ba di xaar kañ ngay dem kañ ngay dem soo demee garage dugg ci oto bu am moteur te gisoo chauffeur kañ ngay dem soo demee garage fekk fa chauffeur fekk fa oto fekk fa essence ti mu fas yéenee dem wab taxoo illayil wasila dugal ci dugal ci boobu gaaw koy nga dem si loolu lañ la wax waaye nag am na ñoo xam ne moteur yu paan lañ sëriñ soo xam ne ñu moteur dañ ko waxante nag ti dee ti dund rek waaw waaye moteur moom amuñu ko waaw dañ fa ni di riir rek riir mu kenn xamul loolu du du du àdduna a da ngay am da ngay am moteur waaw boo defee sëriñ bi na na na mais sëriñ day jàng sëriñ day jàng ah bu la naqaree nag yaa xam nga dee ñu suuli la waaye sëriñ moom day jàng su jàngee ba raw ña mu topp ña topp ci kaw mu raw leen su boobaa man leen jàngal sëriñ Cheikh nee sa sëriñ bu nekkee ca asamaani juróom-ñaar nga nekk ci suuf naka la lay jàngale naka la lay jàngale mais da nga koy topp sëriñ bi lu mu def def ko lu mu def def ko lu mu def def ko lu mu def def ko ba nga àgg fa mu fa jëm waaye sëriñ bi aw fii nga aw fee du ngeen gisee walla sëriñ bi aw fii nga aw fee fa ngeen aw yéen ñaar ñépp amul njëriñ Baye Ibrahima Niass dafa wax ne ki xam yàlla xam yonent bi aw ca yoon wa ngay bëgg xam yàlla bëgg xam yonent bi ñëw ci moom nee na sëriñ ngoog taalibe bàyyi nee na ki bëgg ki bëgg ki ñëw topp ci euh, yére yi xaalis bi desit bi nga nekk ci biir di tëju ñuy dugal ak a génne nee buur a ko dagango buur ak dagangi sëriñ dafay jàng sëriñ dafay jub sëriñ day jubbanti sëriñ day lekk lu lew sëriñ day moytandiku tooñ sëriñ day bale day bale cheikh alhaaji malik radiallahu anhu lu Maodo def Serigne Mansour ci gémmiñam moo ma ko nettali moo ma ko nettali Modou Guèye ngi toog Saliou mbay a ngi toog ti deewuñu Saliou mbay am kër yum doon may sëñ Mansour ma yóbbu ko sëñ Mansour sama xarit la sama xarit la sëñ Cheikh sama xarit la ba fii may wax ak yow million yi may yónnee dañ ma ko yónnee ñu toog ma nag sëñ Mansour mu ne ma doom ma nettali la sa maam Maodo jiite na fii tabaski fii ci Tiwaawoon ñu dajale taalibe fay diw xam naa ko man du ma tudd turu nit mm-hmm. mais bu dee lu baax ma tudd ko ñu fay diw mu wër tëgg ndëndam wax ne ko roy ci Seydil Haaji Malick rey sa tabaski amoo tabaski ko roy ci Cheikh Al Haaji boo rendee tabaski amoo tabaski ndax Maodo doxandéem la mag ñi dajaloo indi seeni yët ak seeni kuur ak seeni ngànnaay ñëw ci Maodo ne ko nag duñ def dara ci tàgguwuñ la dañoo wax ne matoo ilimaan mu ne moo matuma imaam ci ñan yéen man naa ne imaam ñu ne ko amoon ne doy na doy na du mën naa ñu ne ko mu ne doy na ku ñépp na yow a amul yeneen bi amul loolu yàlla mayu ko boppam te mën na koo may boppam mayu ko kenn kon nag yéen ñii su ma ne allahu akbar ngeen ne allahu akbar mat naa leen ilimaan mu toog ba mu yàgg mu ree moo ngi ci bés ku jógee tiwaawoon boo ne tiwaawoon laa jógee ñu jiital la ci yow ñaan yow mun yaati mu ne bés dana ñëw bés ba ñëw na ñëw na dangay jóge jógee woon ñu teg la ca kaw da ngay jógee tiwaa woon ñu teg la yëkkati la ca kaw su dee malaanu wasifa yaa koy ubbi su dee malaanu wasifa yaay tëj bu dee xadara yaay tëj lu mu mën a doon et pourtant Maodo judduwul Tiwaawan gars yi la jógee ñëw fa rek da doon jàngale rek mais tey Maodo Tiwaawoonu Maodo la waaw ku melul noonu nag ne la wóor ne mënoo wuutu Maodo mukk mukk ci àdduna Maodo eh Maodo Maodo ba Maodo benn affaire la beneen affaire la mais bu doon keneen dinaan na xeex na na yeddi jóg daa leen fii ñëw leen fii lu tax ñu ne matuma imaam danañ leen hee eh, du yéen doy naa leen ñu ne ko amu ne doy na ko doy ñëpp amul yéen moom doy naa leen doy na ko doy ñëpp amul voilà moo tax euh, rek rek rek rek rek moom daal sëriñ daal yombul moo tax coow lu bëri nag moo tax ah mooy ni coow li di waaye bu bu sëriñ amoon coow du am waaye gannaaw sëriñ si moom eh, ay rey nit ak faatal di di wëg nu ngeen koy faateeg nu ngeen koy reyeeg yooyu rek la ñuy digle ah waaw léegi ana sëriñ ana sëriñ ana ana sëriñ sëriñ day day fekk lu bon mu nëpp day koy nëpp denc ko comme maam maam borom Touba comme maam borom Touba maam borom Touba bi mu jógee ci géej gi ñu ñëw di ko laaj ne ko léegi nag jekku nga say noon luy sa xalaat daf ne afawtu anil aadaayi turran baal naa képp kuy sama noonu baal naa ñëpp topp ma kenn dara xam nga luy turan turan mooy ku ma xam ak ku ma xamul mooy ku ma xam ak ku ma xamul boole naa ñëpp baal ñu ni ko tax mu ne li wëcc man jëmmi ki nga xam ni bind na leen bind ma ñu xeex ma yóbbu ma ci géej gi yàlla delloo si ma joxaat ma lu ëpp lam ma joxoon su ma toppee ay njabootam di fayonteeg ñoom kon yàlla jéppi yàlla jéppi ma naa baal naa baale mu baale kilifa noonu lay def kilifa dafa jéggale su ko neexoon mu ne nañ leen rey léegi buñ leen reyee lu muy jëriñ du am jëriñ mais bu leen jéggalee ñu am njëriñ tey ana tubaab yi yiy ra ras ay tubaab di ñëw tubaab mu jox leen Cheikh Ibra Fall te seen maama doon sànq sëñ tubaab <laughs> Cheikh Ibra ci boppam la leen jox ñu rassa rek nekk ci waar wee moom ti seen maam fexeel na sëriñ Tuubaa lu ne lu ne ci àdduna lu ne ci àdduna fexeel nañ ko sëñ Tuubaa waaye rek yàlla ku ànd ak moom ànd nga ak moom ko àndul ak yàlla yaa xam waaye sëñ tuba ànd naa ak yàlla de moo tax sëñ Muntaxa loo ci gis yàlla di ko suturaa rek sama maam la sama baay la sama sëriñ la sama xarit la sëñ Muntaxa taalibe bi moom ma jox bi fekk na ma fee jox ma ko loolu moom du dañ ci man man ba may bëgg sëñ Muntaxa nekkul xalifa wallaay du xalifa boobu du xalifa eh, Aysatu Jóob Faal defe naa noonu la tudd mhm. Aysatu Jóob Faal ñu def benn eh, mu enregistré ñu def benn waxtaan mu laaj ma ne ma boo doon fal l'homme de l'année koo koy jox ma ne ko sëñ Muntaxa booba ñaata at la su ko gisee dana ko génne ne ko génne ah sotti la woon ba ma ko ko waxee léegi ëpp na fukki at damaa tudd fukki at sax waaye naaw na ko di wéy ma ne ko sëriñ Muntaxa laa koy jox mu ne ma lu tax ma ne ko damaa neex ma ne ko damaa neex sëñ Mountakha kenn mënu ma koo tax a bàyyi kenn moom na bu ko neexee mu baa ma su ko neexee moom na ma bàyyi waaye man duma ma ko bàyyi mukk sëñ Mountakha man mii duma ko bàyyi mukk duma ko bàyyi mukk bu leen neexee maa ngi ci moom bu leen naqare maa ngi ci moom Mountakha rek Mountakha rek du dañ